القريب واجعل كبيرنا يعين للصغير أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo Xassida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission bi ñu tudde Makarimal Akhlaq di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne li tàmbalee altine ba ajjuma bu juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon ki leen koy taxawul di seen mbokkum taalib Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi xalifa général du Murid di ñaan suñu yàggal ko fi ko di baral ci am tan gërëm ki nekk ci wàllu xarala gi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall suñu waxtaan wi tey ñu am yéene indi waxtaan wi nga xam ne sëriñ Mbàkke Abdourahman mu ngi ko doon amal ci Touba Mbàkke mu bokk ci waxtaan yi nga xam ne waa daayira Moukhaddamatoul ma ñu ngi koy amal ci weeru koor wu ne soloy waxtaan ak lim làmbooy ci njariñ ma war ñu tànn ko indi ko ci biir Makaarimul Axlaaq ngir mu doon njàngale ci ñi xamutoon doon it fàttali ci ñu xaman xam ne itam ne incha am nañ yéene séddale waxtaan wi ci ñaari émission maanaam ñaari xaaj mooy doon njëlbeen waxtaan wi incha allah ëllëg ci waxtu wi mooy doon waxtaan wi nga xam ne mooy mottali waxtaan wi Serigne Mbacke Abdourahmane doon amal ci Touba Mbacke ku suñu borom doxal tawféex nga déglu waxtaanu tey nga xam ne li war a mottali waxtaan wi incha allah ëllëg ci waxtu wi ci leen ko war a indi. mu di ñaareelu émission bi waxtaanu nag incha allah ñu jëbbal kàddu gi Serigne Saliou Diakhaté mu leeral Serigne bi nga xam ne moo war a def waxtaan yi muy Serigne Mbacké Abdourahmane leeral itam thème bi nga xam ne moom la war a waxtaane ngir thème bu am solo la bu bari ay njariñ la leeral itam nan la ko Serigne bi war a séddalee ngir ki nga xam ne mu ngi teewlu waxtaan yi mu mën cee jëriñu bu baax a baax. ngir bañu ko dal ñu jëbbal Serigne Salif kon Serigne Salif Jaxate bisimilah. it mu dalal fi kilifa gu màgg di ku ñëpp xam ci dëkk bi. di seexul faqih al ustaas Serigne Mbacke Hamdou Rahman di ku ñu xam sax ci réew mi ndax yaakaar naa ci ni ngeen ko xamee bariwaana ay wayam yoo xam ne gis nañ ko ci. téere adab yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci nguur gi sëriñ Mbàkke Abdourahmane nag di ku léppe ci dëkk bi ni ngeen ko xame di ku léppe ci yoon wi di boroom xam-xam boo xam ne eh, ay fonction yu am solo ba tey yore na ko ci yoon wi buñ ci tuddee lenn ci responsabilité yi mooy eh, mujammaa bi ñëpp xam ko ci laaj ci wu ko ci sëriñ bi dénk di faqih di adib eh, loolu ma des na ko tënk ci moom eh, tey mu war a ànd ak ñun ci thème almasu xalal xufayni wal jabira eh, mu war a ànd ak ci war a ànd ak ñun ci benn masalam fiq bu ñuy tudde almasu xalal xufayni wa alal jabira ahkaamun wa adab Euh, massa sang sang mbott yi nga xam ne loolu luñ ci sori dana ci ñëw dan mooy sang ak li ñuy tudde band yi li ñuy def ci góom ñu koy tudde ci wolof poora muy band ak ya muy àndal loolu la sëriñ Mbàkke war a ànd ak ñun mooy mu tay bi loolu nag xam ngeen ne ci ruxsa la nekk kon dana am benn taqdim bu muy njëkk def mu xadima bi mooy ci ruxsa lay wax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 alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu sëriñ jaxate maa ngi lay nuyu di jaare ci yow di nuyu mbooleem mbokk yi fi teew di ziare ak waa daairatu muqaddamatul xidma ñiy taxawu jataay xam-xam yu am solo yi ci bërëbu tëdd bi ñaan sunu boroom dolli leen tawfiq dolli leen ndam di ndokkeel jullit yépp di leen ziyaare ci weeru tedd wi waaye li nga wax sëriñ saalihu bis bi tey di fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci la xew-xew bu rëy amoon muy badr al kubra xare bu mag boobu nga xam ne sunu borom mi ngi ko tuddee ci alxuraan yowmul furqaan di bis boo xam ne bam jàllee ci la lislaam wegu mën nañoo wax ne ginnaaw bis boobee moo tax ñun ñii ñu jot ci lislaam kon bis bu mag la ci lislaam boo xam ne sunu borom wane woon na ci ne moo yàlla jàppale ab kuréel bu néew boo xam ne pas-pas rek lañ amoon ak gëm yàlla waaye yoruñ leneen ci kanam mbooloo moo xam ne dooley kese lañ waaye bañ jàmmarloo la tooyoon ci ñoom la bàyyi ko kon yàlla yàlla fayal ñu saxaabatu rasul ak sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bis bii nga xam ne ci la xew xew mag bu amoon euh, loolu nga wax tomb biñ sàkku ñu waxtaan ci mooy almasxu ala alxuffayni wa ala aljabira muy tomb boo xam ne buntu fiq la kon ab bind la bu ñu war a laayanti biir ak mbokki yu li di bàyyi xel jataay bi di aju ci nag ci laab te laab it niñ ko xamee du lu am solo ci diine ji ndax ponk bi gën a màgg ci ponk diine ji ginnaaw ñaari baati seer yi mooy julli te julli moomu laab mooy sart ba jiitu ci ay sartam kon li ñuy waxtaane ci laab la aju kon lu war a soxal bépp jullit la boo xam ne diineem ñor na ko mu bàyyi mu xame ci ne yàlla borom bi subhanahu wa taala diine ji mu indi noppiwul ci dara sàgganewul dara lu mat a leeral leeral na ko fu nit toll taxawaay bu ko ci war diine ji leeral na ko ci loolu lay dugg massa gi ñu bëgg a wax massa ci dàll wu ñuy wax xuf ak lu ñuy tudde jabiira euh, loolu ci tàmbul bi dañ leeral ne ci bunt bi ñuy wax ruxsa ruxsa ci la dugg sunu boroom ci ak ñewantam gum ñewantu jaam ni ak yërëm gu leen yërëm ci la leen ubbalee buntu lu ñu ban nañ ko tuddee baabu taysiiri wa tashil buntub yombal lépp lu jafe rek lislaam du loola lu nar a jafe ci nit rek dañ koo yombalal bunt bu yaatu yaat la boo xam ne day dellu ci rek ci ne yàlla moo def diine muy lu jàppandi lu jafe lu ne rek da ko yombalal yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kon ñu xam ne mboolem tegandaay yuñ tege nit ci diine yàlla na namut ci ay jaamam teg leen ay xat-xat wala na wala metital yërmandeem ak màggaayam ak ñewentam weesu na lool waaye bëgg jariñ ay jaamam bëgg leen wutal aw lay ci njariñ li moo tax mu leen teg yenn jàmm yi kon ñoom lay jariñ buñ ko defee waaye buñ ko def defuti ñoom lay wàññi kon ci yërmandeem moom yàlla ci la waxee ne maa jaala aleykum fi diini min xaraj diina jii ma leen jox ngeen war cee tënku xaraj nekku ci benn karaj luy xatal di naqaral wala bu mettil ak dund nekku ci ku ko foog rek yaa ko foog waaye nekkul ci diina ji loolu nag ci ay yu mbir yu bare bare la feeñ doon gi diina ji nekk al yusru ak jàpp bi mën nañ koo gis ci yu bari bokk na ci baabu ruxsa bunt bi ñuy wax sa ci diine ak yolomal ak woyofal goo xam ne dañ koy jàng ci fiq ci biir lay dugg li ñuy tudde ak ruxsa ash-shar'iyya nga xam ne bokk na ci li diine ji gën a ràññikoo di wane ne saa bu mbir jafee ci nit metti ci moom rek boo delloo ci diine ja fekk fuñ ko ko yombalee ndigal lu mu tis tis yow nga am foo toll bu mënoo ko boo delloo ci diine te dégg ko wala nga delloo ci ku dégg diine dana la wutal buntu yombal boo xam ne looleekat la muy diis diis yow yàlla am na lu mu ci woyofal ba nga mën koo def ci nii ci loo xam ne aw lor du ci bàyyi ko ñal ñëw ci yow di dellu rek ci benn qaayida boo xam ne dañ koy jàng ci alqawaaidu fiqhiya muy wax ne al mashaqatu tajlubu taysir te loolu it delluwaayam di yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al mën nañu wax lépp lu wax ci rox sa mën nañ koo delloo ci qaayida boobu qaayida bi ci aaya boobu lay delloo al mashaqatu tajlubu at taysir lu tiis lu jafe lu lor ne lu ne rek day jural nit ki ak yombalal goo xam ne lislaam da ko bàyyi xel ci loolu li ñuy tuddee roxusa mooy woyofal waaye ñaari maanaa ci buñ koy wax ci fiq am na ruxsa shar'iyya am na lu ñuy tudde ruxsa fiqhiyya ruxsa shar'iyya nag moom lu ñu digle la bëgg bu bu ko nit ci aajowoo mu jëfandikoo ko ndax bu ko jëfandikoo jëfandikoo na ndigalul diine yonent bi salaam nee na inna allaha yuhibbu an tu'ta ruxasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu diine ñaari xaaj la lu ñuy tuddee azima mooy lii ndigal cosaan nga xam ne bu dara xewut jàmm rek di am lii la nit ñëpp war def bu gàllankoor amee ci ñenn ñi nag rux sa ñëw na yéen ñi gàllankoor yéen ñi am defe leen nii nga ne kon leen ndigal lay doon waaye ñaari nit mën nañ koy def duñ mbokk nuñ koy defee te kenn ku nekk tënku ci ndigal la nga def loolu lañ la sant ndax diine ji nag sami'na wa ata'na la li nga def bu fekkee luñ la sant la rek baax na ndax loolu mooy sa digaleew kon kenn ci jafe-jafe kenn ci xat-xat am na ay ruxas yu ko yàlla ubbil ngir mu mën a def liñ ko sant te du loro ki ci nekkut nag ñu ne ko defal azim bu nga xam ne mooy cosaanu diine kenn waru koo génn ci dulu ngànt euh, kon ruxsa charia moo jàkkaarloog al azima bu ñu wax léegi am na nag lu ñu wax al ruxsa al fiqhiya bu ngeen gisee kilifa yi di tere tataboor ruxas topp yomb yomb yi di ko moytuloo nit ñi al ruxas al fiqhi moo tax ñuy wax waaye sa charia moom ndigal la ku mu gaar dam ko war def benn mu nekk wujuban wala mu nekk manduban wala mu baaxan waaye lor nekk ci kenn terewu ko waaye ruxsa fiqhi nag ñaare moom ak bëgg lu yomb la ndàkk yomb yi yoo xam ni ay masaayil fiq yu ñu wuute kenn ku ne am noo gisee ci sa xel noo déggee nas yi fa mu gën a yomb rek nga dajale leen loolu la ñuy tudde rux sa fiqiya te ñuy tere nag ku ko topp dañ joxe misaal na nit bëgg a takk soxna te bëgg lu yomb dajale njër yi wax ne am na mën ngaa takk soxna te du am wali am ñu ne mën ngaa takk soxna te du ami seere am ñu ne mën ngaa takk soxna mu am diir boo xam bu fa àggee fa la yem am ñu mën ngaa takk soxna te doo joxe cen nga boole yëpp ne léegi lii muy sama ngir man loolu amul ci diine mooy la mook euh, takk soxna euh, ñàkk mooy mooy yàlla li ñuy sax ñoo ñooyam ndax tënkuwut fen ca fu ci nekk nag boo delloo ci téere yi ak fuqaha yi danga gis lenn ca la nga def ko ko wax léegi nag nga topp leen dajale ba mu nekk lenn ñenn ñi di ko du talfiq loolu moom dañ koy tere ci diini ndax bëgg lu yomb la bëgg mabu diini la te jaaree ko ci ay nasab moo tax loolu taxul ñuy wax kon ruxsa bi ñuy wax ni mooy ruxsa shar'iyya waaye ruxsa fiqhiyya taxul ñuy wax ñu bàyyi ko xel baax a baax euh, sëriñ mag bi radiyallahu anhu bokk na ci ay njàngaleem yi moytuloo nit ñi euh, ruxas sharia yi ruxas fiqhiyya yi dañuy wax ci tasawuf limale woon na ca tarku jumlati ruxas wa udda minha tarku jumlati ruxas wa tarku tawilin fa daa zaruqu nas imaam zaruq la nettali ay waxam wax ne ponki euh, tasawuf bokk na ca bañ a topp ay ruxas bañ a topp yolom yolomi diine mooy kon yi fiq fuqaa yi di wax ci seeni masail yi nga xam ne masail faraiya la fu ci nekk rek ngay dàkk la ci gën a yomb looloo la ñuy tudd roxas ci fiq yooyu na ko dañuy tere moom koo topp ndax bu ko bu tëë dëkk dëpp génn ci diine la koy yóbbu aliasu billahi taala kon rux sa charia nag moom mooy li wax nga xam ne nit de tollu fenn charia ne ko sa diine yow mooy lii yow jafe-jafe bi nga nekk xat-xat yi nga nekk moo tax sa diine fii lañ la sant nga defe ko nii roxsa boobu nag dana séddale ko doon ay jëf ak ak bàyyi am na loxo looy def la te ñu tere woon la ko waaye ruxsa tax ñu def ñu may la nga def ko ak loo xam ne dañ dañ la ko digaloon waaye fii ñun la mën nga ko bañ a def te doo ci misaal lekk medd medd dafa xaraam sobe la waaye nit dana toll foo xam ne baagee ci boo tub bu lekkul faatu bu lekkul faatu sàmm bakkanam moom lañ gën a farataal ci bàyyi lekk medd boobaa day lekk medd bu dee mbaam bu xonq sax da koy sañ a lekk ngir musal bakkanam ba mën a dund moom la ñuy jiital ci bàyyi lu xaraam liñ ko kon lekk medd ci nit koo xam dafa loru ruxsa la ci moom boo xam ne sax da koy war bu àggee ci leer na ko ne bu lekkul dee du sañ a rey boppam ndax wala tulqu bi aydikum wa la tahluka daa war a lekk ci medd mi bu dee ci mazhab bi tibb sa yóbbu ba keroog mooy gis lu dagan lu làpp door ko bàyyi loolu ak euh, jëf la naka noonu sax dañuy wax ne koo xam ne ay nit dañ la tiim yor ay ngànnaay ne la weddil weddil yàlla baa ñu rey la bu tuddee ci làmmiñam baatub weddi te nekkul ci xolom kenn du ko ci topp illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman loolu it ci waxasi la dugg nit wax baatu safaan waaye waxu ko nag ci coobareem dañ koo fitnaal mu bëgg a sàmm bakkanam tax mu wax ko te wo te jubluwu ko loola lislaam du ci topp kenn loolu rux la la ci jëf loo xam ne dañ la ko tere woon rux say bàyyi bari na lii ñu bëgg a waxtaane tey ci la bokk ci jàpp dañoo santaane raxas ay tànk léeg-léeg na ruux sa ñëw ñu ne la tànk yi bu ko raxas te dutee nga laab loolu wax sa la ci bàyyi julli nga tukki ñu ne la julli yi nga xam ne ñeenti rakka la léegi da koy julli bu ci nekk ñaari rakka tisbaar takkusaan ak gee loolu ruux sa la wax da ngay bàyyi luñ la digaloon ak ki nga xam dañ ko ne saabu amee sobe na ko raxas raxasi bu toj leen a jàppi am na koo xam dafa yor wéradi goo xam ne sobe day génn ci moom saa su ne mënul koo téye wala mënut a téye sobe si kooku dañ koy wax ne ko bu julli jot demal jàpp rek boo jàpp ba noppi nag ak lu mën a génnaat demal julli nga xam ne sobe yi génn ci moom wala ay yére taq na sobe waaye teewul dañ koy may mën koo julli waale ndax rox sala ci ndax dafa am ngànt xëy na kooku dañuy wax rek ne ko moom du jiite ku loola daral waaye mën naa julli waale sobe soosu ndax ngànt la ci moom bàyyi loo xam ne dañ la bu ko def la bul julli te laaboo la léegi nag maa nañ la nga julli te laaboo ci dëgg-dëgg euh, dana nekk it moom ruux sa charé dana nekk lu war dana nekk luñ sopp dana nekk lu dagal kañ lay nekk lu war bokk na ci lu mel ne sàmm bakkan am ndaw ko ndaa bu doon jëfandiku jël lu ëpp mu mu takki ak bële mënta dem mënta dikk benn mu fexe ba mu génn ba mu faatu ñu lijjant di ñëw nit ñi ngàdd ngàdd génnul lenn benn liquide bu ñu mën a jëfandikoo ngir mu naan ko jàll néew fa lu dul butéelu sàngara dañ koy wax ne kon naanal sàngara si ngir fot bi jàll nga dund sàngara foofu dong la la nit bu jëfandikoo ko jàllaleeg fot bu fekkee ne leneen néew fa loolu ruxsa la boo xam ne waajib la ci moom waajib foofu sëñ Tuubaa yi boppam di dee ngir ne naan sàngara si tee yoon wañ koy mën nga koo naan ngir jàllale fot bi dana nekk lu ñu sopp lu mel ne ku tukki tukki boo xam ne tukki bu tego ci yoon la mat euh, diggante bu ñoo xam ne ku ko tukki sañ wàññi wàññi googu lu ñu sopp la ci nit ki ndax sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne moo gën matal ci ki nga xam ne sunna ma dañoo sopp muy wàññi moo gën kon moom lañ gën a sopp ci matal julli moom aji tukki ji bu sarti wàññi daje ci moom dana daggan nag ci lu mel ne sunu masala bi ñu nekk tey benn bi mooy bu dee almasu ala ni moom lu daggan la bu la neexee def bu la neexee bàyyi ak yombal ak woyofal daal la bu dee almasu ala aljabira nag léeg-léeg mu nekk farata moom bu la leeree ne cër bi gaañu boo ci masaa ba wutuwut sa bakkan ndes ci wala nga ñàkkub cër boo ko raxasee sa yëtoo ko raxas day nekk farata nga jëfandikoo rox sa gi ko kon àtte yooyu yëpp euh, ruxsa dana ko seddlikoo dana nekk ruxsa amma ruxsa goo xam ne ñépp lañ ko may lu mel ne bunt bi ñuy wax assalam ci njaay ci charia assalam boo delloo ci usulu charia salam wërti dagan ndax lu lënt xarar da ca nekk mooy di jënd joxe ma njëg di nekk am njaay nga xam day wax ak waa ji léegi ñoo ko damaa soxla nangam bu ñàggee waxtu sàngam daal koy jox léegi nag njëg gi moom nag bu waxtoo jotee mu indil la ci misaal nawet mën naa dugg si nga soxla dugub fekk ab baykat nga ne ko dinaa la jox nangam soxla naa ci fukki bërigoo dugub bu mbay bi ñoree mu ne la waaw daal di jël xaalis bi dem loolu boo delloo ci xawaay day mel ni wut ndax am na xaral xamoo ba xam waxtoo bu jotee loolu dana wala déet waaye sharia maye na ko may ko ñëpp ndax lan day aajo woo xam ne nit ñi dañ koo aajo woo te buñ ko may dajarutoon dund ko métti la nit ñi dund day dellu cee ci yuridu laahu bikumul yusra ji moo tax ñu maye lu mel noonu kon loolu it ruxsa la boo xam ne amma la ñëpp ko bokk am nag ay ruxas yoo xam ne xassa la bokk na ci ñuy waxtaane nga xam ne ay nit lañ koy may léeg lekk ay nit lañ koy may léeg lekk kii kuñ naan na masaa ci aw dàll ak na masaa ci jabira loolu du nit ñëpp ay nit ñu dara gaar la ñu may leen ku ñu di ko def loolu ruxsa la boo xam ne sa la yi koy sabab rek mën nañ koo delloo ci ñaar yi sabab ñu may sa mooy darura lor nara loru wala aajo yow aajo woo nga ñu may la ndimbal lii ndax boo ko jëfut xëy na doo lor sax nag waaye dana mett ci yow lislaam dana yombal ngir dara ngir aajo dana yombal dara ngir lor mën nañ ko tënk ci ñaar yooyu am nañ ci ay àddila yu leer naññ nag ci alxuraan ci wax yéen bi ay salaatu bokk na ca yuridullahu bikumul yusra day wane ne lu jafe dañ ko yombal yuridullahu an yuxafifa ankum laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha man kafara billahi bada imanihi illa man ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman yooyu yëpp ay misaal la ci ne buntu ruxsa bu yàlla ubbi la innama euh, ma aleykum maytatu wa damu walhamul xinsiir wa ma uhilla bi li gayrillah waaye nag fa man turra gis nga bu lor amee fala ithma aley fa man kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayaamin uxar loolu dalil la ci ku tukki saña dog ndax woyofal ak yu mel yu bari bari yoo xam ne yéen islaam yi wax na ci xadis am na xadis bi yoo xam ne ahabu diini ila llahi alxanifiyatu samha diine ji yàlla gën a bëgg mooy diine lislaam ji nga xam ne ak jàppundal ci la taxaw ak jàppundal defeelul dara inna diina yusrun bu aw salaam moo ko wax soxna Aysa nettali na radiallahu anha ne maa xuyira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa ahada aysarahuma maa lam yakun ithma luñ mas a tànnaloo yonentu yàlla muhammad day xool la ci gën a yomb mu tànn loola bu dul bàkkaar rek la gën a yomb lay tànn kon day mel ne diine ji dañ koo tabax ci ak woyofal yàlla bëgg nit ñi jariñu waaye mu teg leen luñ man lu jàppale ci ñoom moo tax lu jafe rek bokkut laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa euh, am na genn kilifa goo xam ne ci bunt boobu daana demoon di liggéey dem ci ay tool wut ay tool di bay sonn ca lool muntu fexe ba dara génn ci mu daldi sànni bay ma daan ne fa kullun muyassarun li ma xuliqa la kenn ku ne yàlla lam la tax mu bind da yomb ci yow lépp loo dugg mu jafe bu tëw mel na kiw dul sa mbir ndax yàlla daa tabax mbir yi ci yombal kon lu jafe ci yow rek nga jëm jëm sa tur ba ko te wut leneen xam ne yàlla Euh, defut say mbir foofu nga seet leneen kon loolu luñ doon le leeral la ci tàmbali bi ngir ñu xam ne ruxsa lu am ci diine la waaye leeralaale it ñaari xeeti ruxsa yu am ruxsa yëpp du ñoo bon ruxsa charia moom dañoo sentaane jëfandikoo ko kii nga xam te dafa gaañu ba tànk bi dafa ab góom masala duñ ko wax mukk ni ko raxasal góom bi mën naa mu jëlee fi ñu dagg tànk waa day nekk farata ci moom bu bañ koo raxas te ko jàll ndax loolu mooy ndigalam bu ko xëttee deful ndigal am na nag waxas yoo xam ne moom yi nga xam ne aajo la ñaare yooyu la wax naa la def azima moo gën ruxsa bokk na ci li ñuy wax euh, loo xam ne tey masaa ci daal ni ñuy wax nii dagan na am waaye bañ ko dafa gën nag summi say daal raxas say tànk mooy cosaan moo gën waaye nag sañ nga ko sol masaaj ci dal bi waaye am na ci yoo xam ne moom farat lay doon bu dee góom boo xam ne boo ko raxasee lor fekk la ci moom sañu ko raxas kon yooyu yëpp day mat a xàmmee ci biir ruxas yi euh, jullit bi war koo xam mu leer ci mbiram bu baax a baax ci boppam kon ñaari ruxsa yi am benn bi moom dañ koo ŋàññi lislaam bëggul nit ki di ko topp ndax topp ay yomb yomb la diine ju woyof la mandargam gëm gu dëgërul la waaye roxsa bi ñu wax nag muy charia moom roxsa boo xam ne dañoo bëgg ñu di ko jëfandikoo ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla daa bëgg ñuy def ay roxasam ni mu bëgg ñuy def ay asaaye maanaam bu la woyofalee daa bëgg nga jëfandikoo woyof ndax da yërëm kon nangul ne ku yaayoo yërmaane nga Eh, loolu nag kon moo ñu indi ci bunt bi ñu bëgg a muy massa ci li ñuy wax jabira ak li ñuy wax alxufayni beneen xaaj bi mooy massa ci li ñuy tudde alxufayni mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ko leeral ci njëlbeen ak waxtaan wi xam la am nan pas-pasab séddale waxtaan wi ci ñaari émission waxtaanu tey moo waxtaanu tey moo nekk njëlbeenu émission bi ñu leen jox daje incha allah ëllëg ci waxtu wi ci ñaareelu jataay bi mu war a jëm nag ci massa ci xufay ni yan anam lan ko sañe ak yan anam lan koy amale wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala الحبيب واجعل كبيرنا يريد بالسقيم واجعل قلوبنا على التودد بلا تناسل ولا تحاسد